mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gis ngeen na sëriñ bi génn na moment bii di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy mbokku taalibe yi kookoy euh, sëriñ Moustapha Sy njiitu Moustarchidin wal Moustarchidaati ibnu sëriñ Cheikh tijaan si Al Maktoum na yàlla yokk leeram taas ñu si ay barkeem bésub gàmm tey ni mu ko daan defee ni ko waa waajuram daan defee tey noonu la ko defee waat di ko ñaanal gudd fan ak wér taalibe yëpp kontaan nañu ma ngay nuyoo waat ca beneen wet ga nuyu na ñi nga xam ne ñoo nekk ci tali bi xoolal taalibe yaa ngi màmm fu ne Ablaye xoolal ñële rek taalibe yaa ngi màmm fu ne di daw bëgg biñ ko bëgg ak cofeel gi ñu am ci moom gis ngeen mbooloo mu takku bi tey bésu gàmm nii la xëyee nii la daan def xëyaat na tey di nuyoo buñ ko gisee rek xol day sedd lii rek doyoon na gis ngeen ko noonu mi ngay nuyoo fële ma nga nekk noonu ci kaw terrasse bi ànd ak ñaar ci ay nit xëy na kenn ki doom ji la keneen ki nekk ñi xam ne ñoom ñoo ko jege gis ngeen nit ñi bu ñu ko gisee mu jaar feneen rek dañuy daw bëgg a jàkkaarloog moom noonu la ñuy barkeeloo ci moom ndeysaan gis ngeen nit ñaa ngi koy nuyu mi ngi nuyoo macha allah ñun tey nii la ñu accès rek dajeeg moom jàkkaarloog moom tamit fa tabaarakallaa ni mu koy waxee. gis ngeen ko mi ngi noonu Serigne baa ngi noonu Serigne Moustapha Sy mi ngi noonu ah, ci kaw terrasse am saafonte na ak taalibe yi fi mu nekk nii mi ngi wàccaat xanaa rek ah, lii yëpp rek ci barkeelu la mu xool taalibe yi nuyu leen wane yëg-yëg ci ñoom ni ñu ko yëgee déplacement bi gis ngeen ma ngay waxtaan ak ak njabootam gis ngeen mi ngi noonu Serigne Moustapha Sy ibn Al Maktoum ñu bàyyi leen ngeen xool image yooyu. nit ñi dañu koy yëg amul frontière amul barrage amul fu mu yem amul fu mu commencé amul fu mu jegee moo tax it saa yu ñu gisee rek euh, kilifa gi kontante lay doon gis ngeen euh, tey fii ci Tiwaawan di mu mel bésub gàmm kër Serigne Moustapha Sy euh, ibn Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum yaa ngi noonu dañuy ñëw taxaw ziar génn ñu encadré leen bien organisé ah bien organiser waaw. tout tànk yi ñoom ñooy génn noonu muy ñi nga xamante ni ñoom itamit si njaboot gi la ñu bokk ñoom ñooy génn dañ leen yi encadrer ñoom ñëpp ñu am sécurité bu mat sëkk ñu yóbbu leen fi ñu war a dem bu ñu jigee seen dalluwaay wala bokk ñuy dem di ziar dañ leen di encadrer bu baax a baax li ñu gis mooy euh, li nga xam ni moom mooy daayira yi ils sont bien organisés. macha allah yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp ñuy sol seen i blouson daayira Moustarchidine wala Moustarchidaat di ay gune di ay mag waaw xoolal ñi ñu ngi leen di encadré di leen yóbbu am na ñoo xamante ni sax booy xool seen dox sax dañuy xaw a jéem rek ndax bi ñu gisee euh, kilifa gi dañu ànd ak mbégte boo xamante ni seen yaram lépp dafay daal di nagam loolu yëpp mbégte la. kon mbokk yi ñu ngi joxante rendez-vous euh, ci kanam tuuti incha allahu rabbi ak yeneen i euh, jotaay yoo xamante ni di leen ko amal ci gàmmu gi kon ñu ngi woon fii ci kër Serigne Moustapha si bi nga xamante ni tey euh, dina amal gàmmu gi incha allahu rabbi di ko ñaanal rek gudd fan wér gu yaram ak mboolem njaboot gi ñëpp yàlla may ñu ñu ja gàmm ko si jàmm ak salaam ak fépp fu waay di gàmmoo rek nañ ñu ko gàmm muy bésub yonent bi. moo gën ñëpp comme ni ma ko waxee moo gën sama papa moo gën sama yaay moo gën sama nijaay moo gën ñëpp gën ngi mbindeef yàlla moo ko wax te it kilifa gi ci loolu lañ ñu lañu lañu la ñuy jàngal ñi nga xam ñoom ñooy njaboot gi di ko di roy si ay jëf yu baaxam ak lépp loo xamante ni rek lu waroog taalibe ak li nga xam moom mooy sëriñam ak lu war ñun doomu aadama ak ki nga xamante ni moom mooy euh, borom bi kon Ablaye ñu ngi lay jaajëfal ak na yaa Moussa jaa ngeen jëf à tout incha allah rabbi ci yeneen i jotaay.